say aleykum mbokk yi yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi ndigal jóge na ci sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalif général des Mourides jaare ko ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke moom sëriñ Saaliwu Mbàkke ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndigal bi nag mi ngi wàcc jëm ci mbooleem ndongo daara tarbiya yu sëriñ Saaliwu Mbàkke yépp ak bépp taalibe ak bépp jullit di ci jiital sëriñ Saaliwu Sàll jëwrinu mbooleem ndongo tarbiya ak ci njiital sëriñ Abdou Ndiaye jëwrinu ndongo féete ci ndakaaru ak li ko wër sëriñ baa ngi woo mbooleem jullit yi rawatina mbooleem taalibe yi taalibe yépp ci liggéeyab sëñ Touba ba jëm xel xelkom liggéey bi nag mooy baadali baadali mooy bàcc jéeri roñ gerte roñ ngooñ setal bërëb ba muy sellal tool yi ba tool yi di gën a sell liggéey boobee nag sëriñ baa ngi ciy woo bépp jullit rawatina bépp mbokk taalibe bu yaakaar sëriñ Touba liggéey bi nag daañu ko tàmbali àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bu 9 jotee ngi ñaax taalibe yi ne kuy ñëw nga bàyyiwaale xel ci jumtukaayu liggéey bi muy rato muy fourchette muy bool muy paan muy siwo muy xottu saaku parla ak bidon ndox lépp loo xam ne day yombal liggéey bi ku ci bëgg lu la leer wala nga bëgg a tàbbal sa jëf ci sëriñ bi wooteel ci 77 143 21 21 77 143 21 21. départ bi nag kër sëriñ Touba fii ci Colobane lay doon dinañu fa teg oto yi teg fa kaar yi képp ci bëgg dem am lu